asalaamaaleykum askan wi ñu bàyyi xel ci seen site bu am solo bi di Sunugal 24 euh, point net mbokk yi Sunugal 24 point net dellusiwaat seen xale mu ñëw tey nag mu dellusiwaat fii ci diwaan Ouest Foire boo ñëwee ba ci pharmacie Victoire seen xel itam day dellusiwaat ci soxna si itam soxna su baax di soxna kii ay dara mbokk yi euh, sénégalais malien waaye itam taalibe Sëriñ Babacar Sy bi balaa ñu def dara mbokk dañ koy daal di bàyyi kàddu gi mu daal di muyante mbokk yi euh, soxna kii ay dara asalaamaaleykum. yëpp maa ngi nuyu yàlla subhanahu wa yàlla subhanahu wa bi ñu bàyyi fii tey di ko sant di ko gërëm bu baax baax nuyu sama ñaari waajure yàlla subhanahu wa taala leen fii tam ñu yàgg di leen gis di julli si prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf soxna Kya Aidara mu mel ni euh, jamono jii weesu da nga nekkoon ci tukki lu baree bari. Mm-hmm. am nga askan wi bëree bëri ñu si bëri naan soxna Kya doon koy woo waaye duñ ko jot lu bëree bëri. soxna Kya loolu moo waral li ñu mel ngir gën ko mën a leeral askan wi ngir ñu mën laa comprendre mu ni sa toog dafa bëritul. comme euh, man mi mu tax a yow sax su nga ma soxlaa ma dem comme kii ma soxla ma dem comme keneen ma soxla ma dem àdduna noonu la soxla su bare na rek toog amatul. tabarka moo soxna Kya mu mel nii dañuy waxtaan tuuti rek. taalibe sëñ Babacar bi léegi tabarkaal mu mel ni sax daanaka jotaay bi yàqoon na ba mm-hmm, mm-hmm. waaye sa dëggante moo tax tey mm-hmm. xëy na tey jotaay bi mën a wéyaat ndax cofeel bi nga am ci sëriñ Babacar loolu tey euh, xaw na maa yóbbu foo xam ne naroon naa yàq émission bi euh, soxna Kiya ginnaaw suñu lay sant ci loolu xol bi tamit sori woon na loolu ñu daal ñëw ci li nga xam ne tamit lu yitteel askan wi soxna Kiya ñu mel nii ni koy faral di waxee am na garab yoo xam ne xëy na amaana. Mhm. xaw na manqué ci. Mhm. fii ñu la fekk si tey. Mhm. amee woon li nga xam ni góom bi sax laay njëkkee waxtaan bi. ñu amoon plaie wàllu góom. góom yi jafee wér. soxna Kya fan nga toll ñi nga xam ne daal di ñëw di faju si amoon jafe-jafe wàllu góom. maa ngi wax tout le temps tout temps yàlla subhanahu wa taala moom mottu mu tax a papa ah, yàlla kese moom mottu doomu aadama mottul. yàlla subhanahu yaa wahab yaa yum maliki yum diin moom kese moom mottu ñun doomu aadama motuñu yow li nga mun su nga yem si man ma mun ma yem si kii ni mu mun mu yem si àdduna bi day neex si katum yàlla maa ngi sant yàlla subhaana taala bu wér-wér góom bi maa ngi faj nit yi bare macha allah comme ni ñuy def interview yàggul nit woo ma France partout am na gan yu jóge sax Italie ñëw fii faju na ko góom bi comprendre na euh, góom façon di fa bare papa am na góom xasan am nay góomi corté la am na góomi corté moom du gaaw wér. maanaam wàllu du gaaw wér santa chaque dimanche mu ngi si moom. maanaam dañ waaw dañ ko sànni si yaramam. yàlla subhanahu wa taala mënu wàcc jox defar nu mais day jarale ko ay doomu aadama yi comme yàlla subhanahu wa taala wàcc. may ñu xaalis de jaar ko si loxo doomu aadama joxuñu ko comme yàlla subhaanahu wa taala mun wàccu faju doomu aadama yi mais géej jaar ko si doomu aadama si seen loxo il faut nit yi xam la moo tax ma sama benn euh, émission bi jaagul ma ne ministre de la santé laa woo ba léegi duma ko bàyyi parce que lu tax xam-xam dafa bare ñuy faju defa bare ku nekk mu ne man mun na suñu ko def benn concours ki munu ni mu mun soxna kii a diabète la mun tension la mun hémorroïde interne SR la mun siti xasan bi la am mun bi gën si yaram la mun corté la mu amam folie mentale la mun mu yem si boobu ku ni mu yem su nga yem foofu rek aduna bi lay neex adduna mu tax a du dara ñu ngi daw si aduna bi di ko daw guddi di ko daw bëccëg aduna du dara adduna fii rek lañ ko yemale mais fee du jeex moo tax tout nga def ndànk-ndànk si àdduna. soxna Kya mu mel ni yow li ma jaaxal mooy yi gën a difficile. Mhm. xaw am jafe-jafe. Mhm. yooyu nga dem jëli garab yi. Mhm. ñëw indiwaat ko mais jabet bi yow nga taxaw man ma amoon kaa indi ko ñu faj ne euh, maa ngi lancé benn appel tey ministre la santé laa woo mu xool ñun siri nii jigéen quelque góor. ñu def benn concours ndax malien nee ne wax neex na torop ma def bi neexul maamunu bi maamunu bi man duma ma sama deneen mais sama client yi xam na bu baax baax li ma faju Sénégal fii ak li ma faju bitim réew ak ma faju àdduna bi yàlla subhanahu wa taala mooy sama séddee. tabarka mm-hmm. mm-hmm. façon dafa bari papa am na benn ñu ko faju faju si xob am na benn bi comme bi yëg bi. c' est à base de nettatu lañ ko faju am na ki leen xam loolu. maanaam à base nettatu. Ah. waaw nettatu lañ ko liggéey. borom de baaxal ko di ko naan garab bi mi ngi ci biiram. Mm-hmm. am na ñi am bu wàcc bi à base de xob la comprendre na incha allah si kàttanu yàlla si ministre de la santé def na concours bi. ah mu tax xam na nit yëpp dina kontaan incha allah si kàttanu yàlla. muy ñàkk jot bi. ñu bëri mhm. dañuy dem ci ñàkk jot bi dañuy dem ba. Mhm. foni Kia mooy ba ñuy jël téléphone. wala mhm. Kia loolu loo bi sama toogu barew voyage dafa bari même si léegi-léegi du yàgg sax dama war a dem encore moment bi voyage bare na trop trop trop trop trop fépp laa dem. fépp laa ñëw tam <laughs> loolu yàlla ma ko dogal. <laughs> macha allah soxna Kya Aidara mbokk yi ngeen ko ni ma ko waxee rek euh, soxna si nga xam ni macha allah rek euh, adresse bi ni ma ko mën a waxee rek mu ngi fii ci diwaan. Ouest Foire boo ñëwee ba ci pharmacie euh, Victoire euh, daanaka rek euh, ak diwaanam sorentiwul lool numéro téléphone baa ngi noonu 78 630 47 00 soxna kii yaa ñu daal di ñëw ci tuddoon nga ko léegi muy hémorroïde. Mm. interne externe. Mm. ñu bëri koy woote. mais ñu mm. fajkat yu ci bëree bëri li leen daaneel mooy dañ naan mën nañu faj hémorroïde. <laughs> te la plupart dañ ci am jafe-jafe. yow nga ne hémorroïde moom it yaa ngi taxaw di ko xaar. papa humeur interne externe wallahi billahi tàllaahi nit mu nu wat si yàlla subhanahu wa taala nga ne wallahi billahi tàllaahi boo wàtt su nga ko wàttee nga ne sama su ma fen sama mbokk yépp ñu ngi si jaxanama nit du wàtt si loolu si caaxaan surtout waajur moo la juddu nga wàtt si wallahi teg billahi tallaahi kenn du ko wàtt si loolu si caaxaan ba nga wàtt salaatu fatiha salaatu fatiha barka la kenn du ko wàtt si caaxaan man maa la wax humeur interne externe yi moo tax ma ne yéen journaliste yi la yéen def leen benn concours ku nekk mu wut benn ni sa journaliste yi ngeen indi nit yi ngeen def concours man lu ma dóor sama dinde maa mun a yëpp mais ni ma mun si sama côté maa ngi sant yàlla subhanahu wa bi wér wér alhamdulilah ñu ñëw ci site site mhm. moom it nekk loo xam ni mhm. lu doy waar la mhm. am na site boo xam ne dafa nekk direct am site boo xamante ni tam ndox la euh, muy am na yoo xam tam dañ koy doonante doonante sété bi ñu doonante mooy bi xasan bi xasan bët bi bi génnee ci tànk bi bi xasan ci yaram bi boobu su amul si yaay amul si papa sa jabar bi nga sekkee moom mën naa la ko waxlee mm. comprendre na comme même humorique wax naa ko nit humeur de waale moo tax tout à su nga am humeur su nga dem si douche bi farata nga def eau de ci kaw douche bi keneen su jabar am na humeur jëkkër bi am na su jëkkër bi am na de jabar am na su doom bi am na ëmb na day am comme infection su jabar bi am na infection doom bi nekk si biiram day am infection yëpp c'est la même chose. siti moom traitement est-ce que yaa euh, non non deux jours rek deux jours man sama garab bi yëpp li ma jox client yi sax xam nañ ko sama garab yëpp ma jox client deux jours nga fiix mais kii dafa am ñoo xam dafa chronique dañuy dem ba seen wéy yi hmm? dafa dafa dafa yàlla mi ngi ma dégg ma sama garab yëpp deux jours la premier jour su nga ko naan di nga sonn tuuti deuxième jour nga war soxna kii yaa nga wax dëgg la tane na. deux jours am na client buy jóge Amérique ñëw fi du ma ko tuddum yàlla subhaana taala dafa bëgg sutura ku am sutura rek. bal bi takk na yàlla dafa bu sutura yàlla bu ko wone mhm. wallahi bi lay client bis mu ñëw sama kër fi di xasan yaramam xasan siti am na siti keneen ki corté la woon ñu ko jaxase ak siti di ko faju ma ne bi du siti bi corté la dégg na xam-xam du jeex comme yow di nga xam sa journaliste bi mhm. chaque jour yaa ngi wut di ko yokk xam-xam loolu la chaque jour di nga daw di wut di ko yokk mhm. maa ngi nuyu waa Mali àllay yëpp maa ngi leen nuyu su ma wax benn dëkk da bàyyi benn dëkk du bàyyi maa ngi nuyu waa Porte Nouveau Bénin maa ngi nuyu waa Ouida waa Karakou benn naay maa ngi leen nuyu maa ngi nuyu waa Nigéria apapa yëpp SMS maa ngi leen nuyu. alhamdulilah macha mhm. allah mbokk yi yéen a dégg si si mu ko waxee mhm. ñu daal ñëw ci wàllum nekk seen liggéey. Euh, mhm. liggéey maanaam seen yaram wàllum liggéey. maanaam ñu def leen def def. xëy na amaana mën na nekk a koof mu nekk beneen wàll xëy na ñu amee ci ay bopp yi metti. di leen noonu ku sa comme tout temps ni ma wax ci internet bi am na doomu aadama ñoom seen si seytaane bopp. waaw. mu tax àdduna nit dafa war a yem su yem na rek yëpp day baax. Mhm. am na ñi ñooy dem laal jabar jàmbur yi am na ñi seytaane ñooy dugg ci ñoom. am na ñi de génne après midi ku nekk nit yëpp xam naa après midi dugg si 14h seytaane day génne am na ñi ñuy dox ba fajar ngelaw seytaane day dugg si ñoom am na ñu su feebar na ba sonn sama wujju yaay ba sama yi fekk na du ñoom ñoom ñoo see seytaane bopp comprendre am na ñi tam na sëriñ am na xam-xam pour leen liggéey mun leen liggéey parce que lu tax am ñaar waajur comprendre man soxna eh, man soxna ma faju sa biir si loolu am ñaan waajur mun ma faju sa biir mais su nga ñëw fii su nga su ma def sama ràmmoon ma ma wàcc su def sama yi dinañ ma ko wone ki ana waajuram dinaa la wax delloo nga dem si moom. waaw am na client bi jóge France ñëw fii jigéen la soxna ki yaa ñaanal ma mu dal dal si hôtel ma naan sa waajur ne du ma kooku bu ma ko ma ne yow ak sa alal demal man soxalu ma ko man dërëm yi ma am par jour par jour may sant yàlla bu baax baax si dërëm dërëm boobu moo tax ma am milliard bi bare bare suba mu lakk ma. am ñaani waajur bu ñëw sama kër benn ku respecté sa waajur soxol ma sa alal ku dóor waajuram bul ma gis sax soxol ma la yenentu moo ko wax de man waxuma ko man kàddu yenentu laa toog yenentu moo ne ku am ñaani waajur yàlla sa faalow la ma samay moom yeneentu bi aljine bi fan la mu nekk su suuf tàng waajur la mu nekk waaw suñu waajur suñu dund ñu profité suñu waajur am seen barka ku wax yaa ngi dox sëriñ million mu faj sa soxla sëriñ mi ngi la nax lekk sa xaalis sa soxla du musu faju ki nekk kër gi sa waajur bu jigéen bi nekk kër gi su xoolam fes na rek. bal bi tàkk na soxla bi sëriñ bi mu laal rek yàlla dina ko baax. alhamdulilah macha allah. Mm-hmm, mm-hmm. mbokk yi ngeen ni mu ko waxee. soxna Kya Aidara. Mm-hmm. li mu wax rek tamit euh, li muy xamalaat rek askan a bu euh, euh, njëkk rek wayjur yee ko. tabarkalla li ci des moom mottali la. tabarkalla soxna Kya mu mel ni dañuy daal di ñëw ci wàllu déggoon nañ nga wax ko léegi. muy mauvaise mauvaise haleine ñi nga xam stock bu baree bari. jeex na daanaka dafa jeex tàkk jeex na takk tuuti rek moo des. loolu yëpp mu tax su ma voyagé waat loolu yëpp sant yàlla la. maa ngi yàlla mi ngi ma jëfle ay nit yu weex yi maa ngi jëflante ay naar yi maa ngi jëflante ay nit yu weex yi garab yi du man kese may jënde pour jaay nit yi. Mhm. am na sëriñ yi sax dañoo ko soxla soxna kii garab ñëw na wutal ma sàkk même ñoo si nga soxla ma jox la garab bi pour loolu la pour nit yëpp mu faju mhm. du pour man kese. tabarkaal ñu ñëw ci mun tax infection façon yi dafa bari am na jigéen dañoo salté maa ngi jégalu si wax boobu sama morom jigéen yi am na jigéen yi suñu tëddee ak góor ba pare ñu raxas seen kanam am na jigéen itam fépp lañ tëddee am na jigéen tam dañoo ko judduwaale am na jigéen tam si jibir jigéen wasinkaay foofu lañu am infection. très bien am na jigéen tam góor bi fépp lam dem di laal laal foofu lañ ko amee incha allah si kat mi am na garab boobu bi ñu raxas seen kanam ak bi ñu naan ñu takkal ak infection boobu. Mm-hmm. soxna Kya ay dara mu mel ni rek euh, tabarkaal la ci ci boobu mu mel ni rek euh, fi may daanale rek mooy euh, wàllu càngat dañ koy faral dégg soxna mm-hmm. sangaat yi sangaat comme mbër lay ko jox mbër yi comme mbër yi nekk combat ba mbër yi soxla ah, pare prépare mun naa ko defar ñoom sangat chaque jour ñi sangu ñi sangu dem àll bi di ñaan hmm. benn jour dinañ def benn émission si àll bi incha allah si katum yàlla ah, waaw si àll bi waaw incha allah man ak sax benn jour dinañ jàpp benn jour su ma jóge voyage ah, ñu dem àll bi waaw dinaa la wane liggéey ma def àll bi hmm. xam soxna Kya yem si kër gi kese yem si xobi yi kese soxna ki yaa dee liggéey ak rawaan maa ngi sant yàlla subhaana taala bi wér-wér di nuy Tamba Mbambi Haydara bani kuré si bani asimka maa ngi nuy almamula Vladé Tchedjan maa ngi leen nuy bu baax baax sama rawaane ah, ñu ngi fi ñu ngi fii man sama rawaane ku dóor sa yaay ku saga sa yaay ku julitoo ñoom ay julit la ay shérif la ay dara lañ sant mooy sama rawaane ay dara lam sant ah soxna Kya. waaye yow ku a jóg man wax na na ko saa yi nga bëgg ñoo sama kër man dina xool sa mbir ba pare. <laughs> ah soxna Kya yow da nga bari na de mais soxna Kya du wax ñaar de benn rek la mu wax wallaahi lay tallaay laaj leen sama client yi su ma yemoo téléphone. sa kër fii la nga dëkk fii la nga dëkk mu ne soxna yow lan la nga xamee man ah du man sama rawaan may ma wax ma wax la ko du ma ko ku gàtt ki mais lan moo tax ngay delloo client yi am na ay client yoo xam dañu lay woo nga delloo leen lan moo waral loolu. parce que ñoom seen wërsëg nekku si man man sama wërsëg nekku si ñoom. mais dañuy du ñu xamante kër gi suñu ma woo tam ma nekkuma fi ba am na ñi tam ñu ñëw ba fii ma ne munu ma la faju demal munu ma la setal. rawaan yi lay dee wala. waaw rawaan yooyu moo wax kii dàq ko oubien kii def na ni def na ni. wala kii intention beneen la jël. voilà très bien. d'accord yooyu la. ah kon nag Kya euh, li ñuy mën a wax mooy Kya Aidara. Mm. Euh, daanaka moom du. kii ay dara neen rek. non non non non non eh mu taga kii ay dara kay amul gardien këram amul dara këram mais am na yàlla subhana taala ak Tamba Bamba ak seen famille. ak seen Babacar si sama sëriñ. tabarka macha allah ñoom ñooy ñi ñooy sama garde corps kër gi. alhamdulilah. Mhm. soxna kii ay dara mu mel ni waxtu bi ñu njëkk daal di nay jot. Mhm. mu mel ni xam naa ni ginnaaw si rek ni nga ko waxee daañu àndaat ci àll bi. def euh, incha allah interview bu am solo. Mhm. Euh, waaye tam xam naa nga yaa ngi dëgmal yoon yaa ngi nekk ci yoon. tabarka allah ngir waajal beneen tukki boo xam ne lépp rek pour xam naa ni askan wi wàllu garab yi nga wax ni Euh, hmm. lan ngay maa ngi wax askan bi ñi ma woon mënuñu ma jot maa ngi jégalu comme ñi ma bàyyi vocal wax ma soxna ak yaa yéen ñooy dem publicité kenn mënu leen jot euh, maa ngi jégalu si ñoom ñëpp. ñu xam tam nekkuma fi Sénégal déplacement dafa bari temps yi liggéey tam bari na sama sox loxo nit yi ma woo tam bari na maa ngi jégalu ku nekk yëpp euh, léeg-léeg bi tam xarit bi ñu jóge nii maa ngi baal ak adduna bi yëpp. ñi ma xam na ko ou bien ñi ma tooñ xamuma ko ou bien su ma toog si internet wax dara nit mu gis boppam meer ma maa ngi leen jégalu yéen ñëpp ñaan yàlla subhana wa taala yàlla bàyyi ñu fi yàlla may ñu gudd fan ak wër sutura àdduna sutura àllaaxira yàlla jégul ñun ñëpp suñu bàkkaar si barka Quran si barka salaat fatiha maa ngi nuy sama sëriñ mooy sëriñ Babacar Si rabia taala maa ngi ko nuyu bu baax baax maa ngi nuyu taarixaat ci jaan yaay yëpp ak diine tarxa diine yëpp nekk Sénégal nuyu na ñoom ñëpp ku nekk sa tudd ak sa sant kilifa diine kilifa adday sukaran jërëjëf soxna Kya Aidara mbokk yi di ko santaat beneen yoon rek euh, moom ni ma koy waxee rek euh, sénégalais ko bu baax di wa taala hmm. euh, doole guddal fanam doole ko defal tawfeex ak tay sëriñ Najaaxa defal la saxab daa leen ci barke yonent bi ci barke sëriñ nga yàgg lool di jëflante ak askan wi waaye tam san wet foir daanaka boo ñëwee ba ci pharmacie Victoire rek yaa ngi ci diwaanam numéro téléphone baa ngi noonu 78 630 47 00 78 di nuyu mboolem équipe technique bu Sunugal 24 point net ci wàllu éclairage bi caméra bi euh, Mamadou Dóor waar l'infatigable di bi Serigne Aliou Diop ci wàllu présentation seen jotaay xalima bu ñëw fii ci diwaanu Sufar seen mbokku taalib Mouhamadou Lamine Muntaka yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla yàlla sa borom yi doon la ñuy